jàmmaneex siidaane jàmmaneex ñun moom lañu ñaan neex ñun moom lañu ñaan jàmmareek ka jaara ut ni indi ay dangarus dangarus kaay ñu ànd bokku ndey bokku baay loolu moo di ndam. bokku baay neex moom dafa neex. jàmm neex neex. moom la ñu ñaan. suñu àndee boole doole yi. ay suñu àndee boole ami benn su amee réew oh, moom dafa neex euh, seen émission ndogu li tey ci samedi ji ñaar fanweeri fan ci weeru mars euh, fii ci Thiénaba TV euh, dajanteeg ñaar fukkeelu guddi gi Euh, ñu war leen ko tënkal nag ci ay ponk ca ponk bu njëkk ba dinañ leen demal ci benn ci daara yi euh, am lu ñu leen fa jëlal rek macha allah ñëw baaxee leen ko ñaareelu ponk bi euh, fàttaliku lay nekk mu am ñu jël bu ko defee fàttaliku leen ñaanal leen macha allah ci weeru koor wi yàlla jéggal leen ñetteelu ponk bi naafile ñu ànd ci ak benn ci imaam yi canaba yi bu ko defee mu andil ñu naafile bis bi mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu di sant yàlla di julli seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokku téléspectateur u Thiénaba TV euh, di jiital ci nuyoo bi nag la xalif général Baye Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla na yàlla yàggal ko suñu kanam te wéral ko ak lépp lu mu jaboote jaar ci moom rek nuyu xalif généraux yu nekk ci réew mi euh, nuyu tamit euh, njabootam gi nekk biir Thiénaba wala ñu nekk sax bitib Thiénaba macha allah ginnaaw nuyoo yooyu nag dañuy delluwaat régie rek bu ko defee ñu fekk fa Alfa Ibrahima Sarr mu indil ñu suñu premier ponk. jàmmaneex jàmmaneex la ñu ñaan jàmmaneex neex ñun moom la ñaan mbokk yi ponk bu njëkk bi comme niñ ñu ko wone foofu rubrique daara lañ ñu indil Euh, daara yi nag tey daara Cheikh euh, Ngouda saar euh, nekk Canaba lañ lañ ñuy dem rek andil leen ko fekk fa oustaz Mamadou Sarr mi nga xam ni tey moo fa nekk sëriñ daara di jàngale macha allah ak di yar kon ñu dem rek seetaan ko te dellusiwaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا واستكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدين الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله فيك وجزاك الله خيرا sunu ndongo loolu di Baye Dame Seck di doomu Serigne Mandiaye Seck ak soxna Say Seck moom it euh, dama naan sax moom dafa ñëw jël ay responsabilité am allah tëjal ñu ko ci njàng mu neex wax dëgg yàlla euh, mu jaar yoon yàlla na yàlla defal la tawfiq ak taysir xale bi di ko dégg jamono ndax euh, fi mu li mu wax ak ñun mooy weer wi ñu nekk kat muy weeru koor ci lañ wàcc alquran foofa dañuy gis ni yàlla moom daf ñu bëgg ndax xéewal gu toll ni alquran wàcc ci aw weer nin ci war a sant yàlla koor moo ci yàlla maam xewalu alquran sant yàlla santuk làmmañ rek du ci doy kon nag sant ko ci bu fi weer wi ak seetee yàlla ni fa man shahida minkum shahra falyasumhu képp ku fekkee weer wi na ko woor na ko woor ndax sant yàlla foofu dëggantaan mooy nangoo weer wi nangoo woor weer wi kon xale bi yàlla na yàlla def ko mu nekk magum lislaam wax dëgg yàlla njàng mi jaar na yoon kon moom rek moo nekkoon ki nga xamante ne bii moo ñu uh, mujj jàngal ci jataay bi kon oustaz yaakaar naa xale yi de ku leen dégg di nga xam ni uh, ñoom de ay jàmbaar lan waaye jàpp naa ne ñi nga xam ne aussi ñoo leen di jàngal ay jàmbaar dëggantaan lan bu ko defee incha allah nga am benn commentaire rek ci njàng mi bu ñu paree nag ñu ñëw ak yow ci sunu laaj bi nga xam moom la ñu yëkkatee jataay bi oustaz uh, bu ko defee ñu joxe dig daje ba beneen incha allah kon dafa dal mashkuran alhamdulilahi rabbil alamin wa ma bikum min ni'matin fa min allah waaw yàlla moom ay xéwalam dafa yaatu dimbali la nga mën a jàng alquran nit ñi dégg ko mu neex ci ñoom sax ci xéwal yi la bokk dama leen di wax ni yàlla def ni fa innama yassarnaahu bi lisaanik li tubashira bihi almuttaqin maanaam jàppandal gim jàppandal làmmañ ñi pour ñu mën ci jàng alquran bokk na ci pour ñi ragal yàlla di mën a bég ci alquran fa innama yassarnaahu bi lisaanika laaluhum yatadakkaruun nit ki loolu wax jamono ju nekk nit ki bu yëkkatee alquranul karim rek ki koy diglu te xam ci ci luxa dara war na caa waaru ki ci xamul dara it war na caa amee mbégte waaw fa innama yassarnaahu bi lisaanika li tubashira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qawman ludda waaye alhamdulilahi rabbil alamina lii nga gis nii nag sëñ Mamour xam nga danga ma maa woo rek ni ma liñ defoon daaw lañ bëgg ñu defaat ko waaw ma ni la ah bisimilah nga ne ma ndax mën naa ñëw ma ni la bisimilah man mën naa nekk laataa ngaa ñëw it damaa wax ci ñi yore xalxa yi nii leen ku ci nekk na ma jox benn xale ku ci nekk daal di jël benn xale rek jox ma kon euh, nekkul lu ñu wàcc te yàlla dogal na it ñii ñëpp kenn kenn rek moo fi ijjiwul waaye ñi si des ñëpp fii la ñu ijjee waaw ñaareel ba it am na ci ñoo xamante ni wàcc nañ ba bay toppaat am na it ñu ñu am yaakaar ci ñoom lool sax nag ci diir bu gàtt waaye comme li nga wax ci ñoom fi nga xamante ni fi lañ jukki ku ci nekk fi mu jukki ak ci mujjee jàng jàng man maa ni ko jàngal aaya bu dëppook weeru koor yi mu yaayu sam kutiba aleykum siyaam ku ci nekk nga fi nga jàng maa ko tànnal ngir mu fàttali benn histoire waaye alhamdulilah rabbi alamina bi ñu yàlla dimbalee ba nga xam ni ki ñëw di ñu laaj moo ñu gën a xam li xale bi di wax ba nga xam ni bépp xale bu yëkkati ba daaneel rek yow da nga kay da ngay saraa mu waxoon yëpp ba ñi xamul li mu firi mën a xam fi xale bi tolloon macha allah ñu ngi leen ci sant di leen gërëm bu baax a baax a baax lii nag nekk na lu am solo ñun amuñu lu dul daara te daara lañ xam waaw ci lañ judd ci lañ màgg bañ juddoo ba fi mu ne génnuñ ci daara moo tax ñun daara rek moo ñuy bégal su ngeen ñëwee tamit nag ñëw indil ñu sukkur koor si moo ñu dàqal ci sukkur suñu su koor bu ñu mën a amaat ci biir weer yi lii ñu ci dàqal. ah jërëjëf Oustaz Modou Sarr ci daara jooju nga xam ni mooy daara Cheikh Ngouda Sarr ah, nekk fii ci Thiénaba tey macha allah gis ngeen waxtaan wi mu waxtaan ak ñun waaye. Euh, daara jooju euh, daara la joo xam ne am na ay taxawaay euh, bis bu mag la defoon fii ci biir Thiénaba muy bis boo xam ni feetu alxuraanul karim la woon ànd ko ak ndongo daara yoo xam ni mokkaloon nañu alxuraanul karim foofu ci daara ji waaye ànd ko ak parents d'élèves di jaajëfal nag ñi mu àndal ci liggéey bi ku ci mel ni Nguuda Sarr oustaz Nguuda di ko jàppale waaye ku ci mel ni ay magam yi nga xam ne ñoom la ñu àndal muy Alaaji saar ak Khalifa saar ak ñoom moor Euh, Sarr ñoom ñëpp macha allah ñu ngi leen di jaajaful bu baax baax ci àndandoo gi nga xam ni jàppalante gi am ci seen biir euh, ba daara jooju mën a taxaw waaye fàttewuñu tamit parent d'élèves yi euh, ku ci mel ni soxna Sali jàlloo ku ci mel ni soxna Khady Seck macha allah nga xam ni ay yaayi daara lañ taxawu nañ daara jooju waaye ku ci mel ni suñu waajur Baye Babacar Ba moom tamit am na taxawaay yu am solo ci daara jooju ak ñu waa koñ ba yëpp macha allah bàyyiwuñu kenn. xam naa dañuy dem rek euh, fekk Alpha Ibrahima Sarr ci régie bi te dellu si waat. jàmmaneex jàmmaneex jàmmaneex ñun moom la ñu ñaan Euh, fàttaliku muy ñaareelu ponk bi ñu indil tey tey nag ñu war a fàttaliku euh, ku njëkk ki euh, Serigne Alpha Diop mu bàyyi Alioune Diop muy suñu nijaay macha allah moom la ñuy fàttaliku keneen ki ci topp mooy bàyyi Talla Soare bàyyi Talla Soare nag amuñu video mais photom la ñu am. moom la ñuy xool photo bi rek macha allah seetaan ko barkeelu ci te ñëwaat keneen ki mooy Baye moor Dem Baye Mor Dem euh, macha di waajur ci soxna isa Dem ak soxna Daba ak soxna Jobbe ak Serigne xalifa Dem moom ñoom ñooñu la ñuy dem rek xool daal di leen di fàttaliku te dellusiwaat. Euh, Serigne Maodo da ngaa baax rek di delloo waaye li nga war a wax lépp wax nga ko pare waaye li ci dolli du bari cant mënut a paase wax na ni mi leen di sant bu baax a baax a baax. jëlee ko ci ndigalul kilifaam sëñ Abdoulaye Diop yàlla na ko yàlla yàggal lool te yokk ak wéram de sant mboolem ñi nga xam ne fa tabaarakallaahu dañoo jóge ak foofu waay mën a jóge ak gox ba mën a jóge teew si tey suñu bisu maam bii sëñ Maodo wax na ne ci ndigalu sëñ Ablaye mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm mi ngi lay ñaanal yàlla lépp lu fi jël ci tuyaaba yàlla na ko bokk ak yéen ñaan yu ni ñaan jëmee ko ci mag ñi yàlla na ko yàlla nangu ñaan yu ñaan jëmee ci noonu yàlla na ko yàlla nangu nee na gis na jëmm yi fa tabaarakallaahu cekkeen kenn desut kenn ku nekk ñëw nga wala sa ndaw ñëw na loolu rëy ci noonu lool njóobeen kenn desut ñëpp ñu noonu suñu bàjjana gi ci biir mboolem sët mboolem jerbaat yi mboolem gore yi kenn desut ñëpp ñu nañu kon ñu ngi ñaan ci borom bi tabaaraka wa taala yal yàlla fekk lu déwén kenn bañ nga manqué euh, préfet nag sëñ Mab loolu li mu ci wax mooy li wér mboolem li mu fi gàlloo woon ci bis bii dara manqué wu ci lépp andi leen ko ñu ngi sant maire yi fi daje yëpp it muy maire Mamadou Thiaw bu teseet ak meer maire Ngoundiane ak maire Talla Diagne bi ba ñoom ñetti meer yëpp kenn ku ci nekk li nga jàppoon bàyyi nga ko andi si jëmm andi sa alal dugal ci bis bi ak mboolem tudd wéeg li ko wër kenn ku ci nekk bi nga yëgee bis bi lépp loo jàppoon bàyyi nga ko bale ko say teraanga ñëw kon ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi ñaanal yëpp yàlla sëñ Moustapha Fall mi nga xam ni mooy nekk fii ci tool bi di sunu goro di sunu xarit nga xam ni fa tabaarakallah ba mu fi duggee ba nëgëni lépp lu ci bis bii ku dikk fekk ko ci ku ci ak mboolem ñi mu àndal ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal yàlla li mu bari woon na lool waaye jotaay bi fa tabaarakallahu eh, te ñu bari dañu war a delluwaat ci guddi gi te fan jëm sori na kon loolu moo tax dañuy tënk kàddu yi ñi yore kàddu yi bu ñu egsee dana ko wax Maodo daal mu ngi leen teeru di leen teral di leen tatagal yàlla na yàlla nangul nu ñaani nu fi ñaani yëpp jëmbat ko sunu maam ji ci ginnaaw jumaa ji gis na Serigne Ousmane Seck doomam Serigne Mamadou Serigne Maam Tall Seck ñëw na teew jóge Mbour ak délégation bi mu àndal fa tabarakallahu moom it ñu ko sant bu baax ndax nii mu def noonu la bàyyam daan def bàyyam dara jóge ànd délégation bi ñëw toog fii ba gàmm ko jeex mu dem ñibbi ba mu fi jógee ba léegi it doomam jii di sëñ Momar Tall Seck jamono bu bis bi dikkee ànd ak délégation ba bàyyam daan ñëw teewaat ci bis bi sagal nu siggal nu ci suñu bis bi kon moom itam ñu ko sant bu baax di ko ñaanal yàlla lépp lu bàyyam nesaroon ci dina jeeg bokk yal na ko yàlla may mu mottali ko ci jàmm loolu lañ ci doon sànni jigéen ñëpp sant nañ ñu ngi leen di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf jërëjëf la régie kon mu ngi noonu sëriñ alfa Diop macha allah Alpha Diop euh, bu bàyyi sëriñ Allaay sëriñ Diop waaye euh, Allaaji Aliou Diop macha allah waaye Alpha Diop euh, bu daayira Nujabaaw bi nga xam ni amoon ay taxawaay yoo xam ne taxawaay yu am solo la waaye Alpha Diop nekkoon taalibe sëriñ dikk sekk borom yàlla neena na noonu rek la taxaw woon ci dëkk bi taxaw woon dëkk bi macha allah taxaw woon pénc mi ci loolu ñu ngi àndandoo njobootam Euh, di delluwaat rek euh, di ñaanal ki nga xam ni moom mooy euh, Serigne Alpha jóob di ànd ak soxna Awa Gaye ak soxna Kiné Alaaji Mor Diop mi rakkam ak Serigne Alaaji Ibrahima Diop ak ñi ko àndal yëpp ak waa njóobeen yooyu yëpp macha allah xale yeeg jigéen ñi ak soxna Fat Diop suñu xarit nga xam ni moo nekk Kër Magay Ndaw moom tamit ñu ngi koy koy delluwaat rek di àndandoo moom di ko ñaanal. Euh, macha allah di ñaan rek ak Ahmed Diop fàttewuñ ko Mouhamed ñu ngi koy moom tamit di àndandoo moom rek di ñaanal suñu euh, nijaay jooju muy ki nga xam ne mooy nijaay Alfu Diop keneen ki ci topp mooy Baye Talla Soare Baye Talla Soare mu Cheikhou Canaba euh, Baye Talla Soare mu maam Momar Talla Seck waaye Baye Talla Soare bu Baye Alfa Mamadou Seck macha allah moom tamit amoon ay taxawaay yoo xam ne taxawaay yu am solo la xam naa rek ñu àndandoo ak njaboot gi Khalifa Soare macha allah di ab taawam. waaye àndandoo ak euh, ñoom Malick Sawaare ak sëñ ma dikkee ak ñi ko bokkal yëpp sëñ moodu Sawaare ak euh, soxna Ndeye Diagne Sawaare suñu xarit suñu jarbaat moom tamit ñu ngi àndandoo moom rek di ñaanal suñu góor góor nga xam ni mooy Baye Talla Sawaare nga xam ni dafa jeexoon Canaba tàkk euh, keneen ki muy Baye Mor Dem Baye Mor Dem nekkoon chauffeuru Seexu Canaba nga xam ni ay taxawaay yu am am solo la amoon ci Baye wetu maam Momar Talla Seck wetu mag ñooñu nga xam ni tey seeni jaloore ñu ngi koy wax ba léegi. Euh, bàyyi euh, moor dem euh, ñu àndandoo rek ak ak njabootam sëriñ xalifa dem ñu nga xam ni tey mooy ab xalifaam waaye àndandoo ak soxna Isa dem ak soxna Daba dem ak soxna Jobbe dem macha allah di ñaanal suñu góor googu muy bàyyi moor dem ak njaboot gi nga xam ni tey ñooy sët yi ak sët sëtaat yépp ñu ngi leen di àndandoo rek ñaanal suñ góor googu euh, ñooñu ñu tudd yëpp yàlla na yàlla jéggal leen yàlla na yàlla dugal leen aljana te ñu dëkk fa ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñooñu la ñu andil woon tey euh, di leen fàttaliku dañuy dem régie te dellu si waat. jàmmane jàmmaneex jàmmaneex ñun moom lañu ñaan ñetteelu ponk bi di ponk bu mujj bi imaam Serigne Gora sekk lañ ci àndal muy naafile bis bi ñu dem déglu ko te dellu si waat aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala a illa billahi al aliyyil azim xasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'mal nasir allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatih lima uxliqa walxaatimi lima sabaqa naas alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaq xadri wa miqdaari asim mbokki julli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu ngi leen di nuyuwaat fi ñu leen daan nuyoo ci waxtu wi ñu leen daan nuyoo ci ngëneeli e, taraawiix yi ramadaan mooy naafilek weeru koor wi tey jii ñu ngi wax ci guddik ñaar fukk waaw guddi ñaar fukk mi ngi toll ci guddi ñaar fukk waaye ñuy ñaan yàlla li ñu romb lépp yàlla nañ ko yàlla nangul la ko dëgg ca fukki fan yu njëkk muy raxma ga raxmatu ga yàlla nañ ko yàlla defal ba ne tey jii ci fukki fan yi nga xam ne moo ne ci digg bi jeex nii ñuy waaj dugg fukki fan yi nga xamante ni mooy itqul mina naar yàlla nañ ko ci yàlla defal waaye ñu ni man salla fiha samaniya rakaatin yaqra'u fi kulli rakaatin fatihatil kitab wa ina anzalnaahu maratan wa qul huwa allahu salaasa maratin kaana lahu min athawaabi adadi alxasanaat wa yaxfiruhu qadimaha wa xadiisaha wa anhu dulumaati alxabri wa yadxulu aljannata aminan maa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waaw gii yi képp koo nga xamante ne nii julli nga ci euh, juróom-ñetti rakka samaani rakkaatin juróom-ñetti rakka rakka bu nekk nga jàng ca fatihatul kitab wa ina anzalnaahu maratan waaxidan nga jàng fatihatul kitab ba mu àgg nga jàng ina anzalnaahu benn yoon jàng xul huwallaahu ñetti yoon nee na soo ko defee kaana lahu min asawaab bi adlil xasanaat di nga am ci aw yiw ci mboolem limu yiw yi waaw mboolem limu yiw yi boo defee lii yàlla dina la booleel mbooleem li mu yiw yi jox la ko te wa yaxfir zunubahu qadimaha wa xadisaha te du ca yam dina la jëggal say bàkkaar yu jëkk ya ak yu mujj yi wa yadfau anhu zulumaatil qabri te dina la fegal lëndëm lëndëmil aj euh, euh, bàmmeel bokk yi te ku ne xam ne ne bàmmeel lëndëm la waaye nag bu fa njëggalal yàlla jiitoo day leer naññ nee na ku julli julli gi di nga am leerug bàmmeel yadxulul jannata aminan maa muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te loolu moo dàq lépp dugg àjjana nekk ku gëm yàlla nekk ku wóolu yàlla nekk koo xamante ni da ngay dugg ànd ak sayduna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko ci yàlla ci guddi yii di guddik ñaar fukkeel yàlla na ñu julli ko suñ ko jullee na ko yàlla nangu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf imaam Serigne Gora kon naafile bis baa ngi noonu euh, juróom-ñetti rakka la tey euh, di ñeenti sëlmalin rakka bu nekk da ngay jàng fatiha jàng euh, benn ina anzalnaahu jàng ñetti lixlaas boo paree rek ñaan ñaanal réew mi waaye ñaanal suñu dëkk bii di canaba ñaanal tamit mbokk jullit yëpp ñaanal mucc macha allah nit ñi ñaan tamit yàlla gën a yombal lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nangul ñu suñuy koor nangul ñu suñuy jaamu yàlla te gën ñoo xiir ci ñu jaamu ko tamu nangul ñu ko ci barke yonent bi kon loolu lañu ne indiloon tey seen émission ndogu li tey ci samedi fanweeri fan ci weeru mars 2024 fii ci Thiénaba TV euh, ponk bu njëkk ba ñu àndoon ak euh, équipe bu Thiénaba TV euh, Oustaz Mamour Mbengue ak Talla Sarr demoon daara daara Cheikh Ngouda Sarr fekkoon fa Oustaz Modou Sarr Euh, jóge fa euh, ñëw ci ñaareelu ponk bi muy fàttaliku ñu fàttaliku sëriñ Alpha Diop fàttaliku Baye Talla Souare fàttaliku tamit Baye moor Dem euh, bañ fa jógee ñu ñëw ak yenn ci naafile bis bi ànd ak imaam sëriñ Góora mu andil ñu rek naafile bis bi juróom-ñetti rakka la benn di ñeenti sëlmalin rakka bu nekk faatiha ngay jàng ak benn inanzalnaahu ak ñetti lixlaas macha allah boo paree def say ñaan ñaan loo ñaan yàlla na yàlla nangu ko ci barke yonente bi sallallahu alayhi tey ñu àndoon ak caméra bi euh, ki nga xam ne mooy Talla Niass Diop borom junne yi àndoon ci lumière bi Adja Mami jàlloo Moussa Ndiame Gueye moo àndoon ci waxukaay gi régie bi Alpha Ibrahima Sarr joxante dig daje incha allah suba rek euh, ci waxtu wi ñu dellu suwaat ak yéen ci seen beneen émission ndogu li jàmm xewal ak sutura yàlla na yàlla def ko musaa Wane baawaan ci ba ak li ko wër asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. la la la.

si daaneex jàmmaneex ñun moom lañu ñaan jàmma rekk ka jaara ut ku fi indi ay dangarus dangarus kaay leen ñu ànd bokku ndey bokku ndey bokku baay loolu moo di ndam bokku dafa neex. jàmm neex si daa neex. jàmm neex ñun ñu ñaan. suñu àndee boole doole yi. ay suñu àndee boole doole yi. déggoog juboo xol yi benn. àndandoo joow suñu gaal. suñu gaal. lii su amee réew mi daana neex lii amee réew mi daana neex oh, jàmm moom dafa neex